Team de Gàddaay ginaaw biñu amé ñetti décision de justice gagné promoteur bobu tojoon sen kër ñu tok juroom benn weer di xaar décision bobu yoon appliquer ko ken appliquer ko waji mi ngi tëdd kërëm mi ngi continuer def lu ko neex état bi ñu digoon ñu tok diko xaar nañu bu yoon atté ngén am ndam wala ngén ñak am ndam dinañ leen jox ay keuyit yu woor accompagner leen ngén dekk sen kër ñu tok di xaar état bobu gisunu dara ñu dem ba xamni ni mënatuñoo xaar ci lañu juk nak né inshallah dinañu def tay 22 juin bi di lundi grève de la faim noonu ñu ko waxee woon noonu lañu ñëwee tey ci jàmm ci njekk ci teranga ñëw lal suñuy baas toog fas yéene def grève de la faim xaar yàlla à notre grande surprise police ñëw police yu yëmbal gaareel ñu contingent di ñu sànni ay lacrymogène di ñu dóor di ñu maate comme lu kenn mënut a wax lacrymogène yaa ngi nii damm fi ñaari nit dóor leen ay lacrymogène kenn ki tànk bi lañ ko dóor mu damm keneen ki loxo bi lañ ko dóor mu damm kenn ki évacué nañ ko ki ci des ñi ngi xaar sapeur ba léegi ça fait plus de 45 minutes ñu ngi woo sapeur pour mu ñëw loolu mooy li xew gàddaay léegi nag ñu bëggoon a wax ni loolu ñu waxoon àdduna yëpp dégg ko tey lañ ko gën dëggal suñu bopp nañu indi armée nationale buñ ñu reyee ba ñu dee wala ñu jàpp ñu ñun ñëpp yóbbu rëbës su boobaa ñu xam ne doole mooy dox ci dëkk bi ñu xam ne dañoo ëpp ëpp doole ñu toog xaar yàlla mais fii ak loolu amul dinañ fi toog dinañ fi yendu dinañ fi fanaan ba keroog ñu ñuy jox suñu kër loolu benn retour bi ñu defee suñu conférence de presse ba léegi amuñu benn retour loolu ñu waxoon ak ñoom ñu ngi taxaw fi ñu taxaw ñun ñu ngi taxaw fi ñu taxaw ñun nag dem nañ ba nga xamante ni xaaruñu leen finalement ñu ngi fii tëdd daal ku ñëw daal di ñu fi fekk ku ñu fi fekkit lu mu jar dinañ ko jëflanteeg yow fu mu yem rek neex ñu xam ne dañoo tooñ ñu jaayante ba keroog ñu am li ñu wax mooy li mu ciy wax mooy na ko def léegi te ñu koy wax ne ko maanaam moom fan la nekkoon depuis 2013 ba léegi loolu mu lu tax def ko woon 2013 mu war ko tëj ci kaso bi mu ne day porte plainte waaye nag Sénégal lañ gisee prisonnier bu ne day taxaw day porte plainte yow ñi nga tooñ demuñu tëj la kaso nga yow nga taxaw ne da nga leen di porte plainte fii ci terrain bi billaahi wallaahi taalaahi lu mu rek pare nañ pare nañu slogan baa ngi ne suñu kër wala suñu bakkan ndax ñun dee nañ ba pare xam nga ku dee ba nga xamante ni xeqali kooku la des ku ko jekkali da koy noppal moo ñu dal nag